ñu toll ci ñu ngi dugg ci bunteelu ñeenteel bi tey moom dama ko gaawal indiwul ma ay misaal yu bari ndax dama bëgg ñu dab kilifa ndax buntu yaa ngi waaj a dem abana mawliduhu an tibi unsurihi ya tiba mubtada'in minhu wa muhtatami abana biral kashafa wa adhara mawliduhu masdaru mimiya la yasluhu li an yurada bihi alwiladatu aw zamanuhu aw makanuhu mu ne abaana feeñal na biral wuññi mawliduhu bérébu ganek àdduna wala nga ni mawliduhu ganek àdduna seyduna muhammad lan la biral mu ne an tibi unsurihi ci teeyu cosaanu seyduna muhammad an xuluusi wa taharati aslihi wa nasabihi an irradaili kama qaala imaamu ali karama allahu wajhahu laysa fiina sifaaxun kulluna nikaaxun min aadama ila min aadama ilayna seydna aliyun xam nga bu njëkkoon dañu wax dañu wax dafa amuñ daan wax nikaaxu sifaax muy ku sa ku sa arab da daan def ku sa jur génn àdduna soxna yam fa bàyyi te juruñu la yow taaw ba yaa see takk keneen andak lol lim dan xew ci jaahili yëpp mam yonenti bima am ci mam adama ba bimi muy ci mam abdallah amul kenn ku jaar fof ma man manqulan min aslaabi tuhri ha ila tayyibat ila tayibat ila tayyibat rahmi ni ama usulu madama ni anti bi unsurihi walif teyu cosaanu sayyidina muhammad yaa tiiba mubtada in woonaa teeyu cosaanu tàmbalekaayu mam yonenti bi min ci mom wa muxtatami ak motali ga di mam abdallah xam nga maam aadama mooy maamu yonent bi ci jëmm waaye yonent bi mooy bàyyu maam aadama ci ruux ibnul farid nee na wa inni wa in kuntu bnu aadama suratan faliya fihi maanan shahidun bu nekkee ci jëmm de jëmmi maam aadama laa yor waaye maam sama ruux la yoroon waaw kon moom mooy bàyyam ci ruux kon yonent bi nee na lam yazal illahu yanquluni min aslaabin tahiratin ila al arxaami dakiya yàlla dafa doon def jamono bu ñëw ka gën mooy nekk maamu yonent bi jamono ba ca topp ka gën mooy nekk maamu yonent bi jamono ba ca topp ka fa gën mooy nekk maamu yonent bi ba ci maama abdul mutalib ñëw maama abdullahi génn foofu ñëw nekk baayu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye balaa sayyidina muhammad yi gën a àdduna waaye mawlaana abul abbas ahmad tijaani mi nga xam ne li sayyidina muhammad wax ak li yàlla wax amul kenn ku ko gën a dégg moom cheikh ahmad tijaani nee na li yàlla li li gi li li yàlla li sayyidina muhammad jublu ci tahaara boobu wa araada bi tahaarati at-tahirata min al-kufri fi abaihi kéefër mus sa nekk ci maamu yonent bi yenn saa na nga gis bindkat yu leneen la ñuy bind waaye menn maamu yonent bi bu mos a dund ci kufru amul waaw bindkat yi nee nañu maamu yonent bu bu dund ci jamono rek tey nubuwa amul yaay xutbu samaan jamono jooju waaw ndax leeru mu Muhammad gi nga xamante ne moo nekk ci yow ndax jomb na ci yàlla muy jël leeru yonent bi di ko def ci ndigg loo xamante ni bii kéefër da ca war a nekk muy bokkaale moo tax Seydi Haaji Malik mu ni wa kaana chiitu wasiya al asli muntaqilan min xiiratin karamin lil xiiratil karami ku dégg Maodo ni muy dugge ci biir téere bi rek nga xam ni bu bero woon wax tamit tabaarakallaa ñu mën a doy loolu mbind waaye décentralisation ak bañ a ngar daajoo yëf yi wax ni man la taxu koo jóg li ko tax a jóg mooy ñu gis Seydunaa Muhammad waaw tilkal ishaaratu rek joxoñ rek ni Seydunaa Muhammad a jara topp mu jeex mu ni yaa tiiba mubtadain ay ayuhal uqala انظروا نظرة, نظرة تأمل وتعجب تيب مبتدأ ومفتتح منه ومبتدأ هذا الأصل الشريف آدم على الأشهر ومختتمه ومختمت ومختممه محتمه أبوه عبد الله نينا na départu maam ya aadama la waaye mottali ga mooy abdullahi nee na xool leen diggante ak siècle yi fi jaar ngeen xool xoolu settantal ni yàlla mënee sàmm yëfam mu ne yonent bi dee ngay waaj gane àdduna waaye am na lu xew yawmun yawmun tafarrasa fihi lfursu annahum qad undiru bi xululi lbusi niqami seen affaire yàqu na ndax yawmun ay huwa yawmun adimun waqaa fihi ayatun wa ajaibu kéemtaan yu doo yu dal fursi yi les persans yi leen daal ci jamono gan ak Seydina Muhammad feeñ na ay kéemtaan ay tegtal yu leen di wan ni seen nguur gi mi ngi bëgg a far ndax seen gisaane yi ku ci nekk def nga sa gisaane ñu wan la ni jamonoy gane àdduna Seydina Muhammad a ngi ñëw bu Seydina Muhammad gane àdduna faaw ñu folleeku ndax alxaqu yaalu wala yoolaa وجعل كلمة الذين كفروا سفلى وكلمة الله هي العليا يوم بسلا بو خمنتن تفرس أي ظهر لهم أسباب وعلامات استدلوا بها وخابوا وخافوا منها على خراب ملكهم وخلول البؤس بهم jamono joo xamante ni bii feeñ na ñeel leen ñeel fur su nekk ñoom xad undiru xuppeef na leen bi basi ci tabbi musiba bu'su huwa shiddatu wal masaibu nadila ci taru waccu xat-xati jamono ak tartar ci ñom wa furs ndax ñom dañu amon doole jo xamni ni dañ dan jaamu safara safara bi tal nañ ko mu tak junni at fayul junni at dañ dan recruter ni nga amé ci jakka ji ay kat ak ay kat ñom nañ lañ dan amé ay xambkat kat ñom bu ni jakka nekkee masajidan lillahi ñoom buyutu naar moo nekkoon abadan li asnaamihim mooy fi nga xam ne fi lañ daan jaamoo seen xërëm ya dañ daan taxan nag di cotiser ni ngay joxe sëriñ bi addiye alal di làmb sa poos jox ko ñoom addiye matt lañ daan joxe mu ko defee ñu ñëw nag di taal ku ñëw di xambu junni at ñu koy xambu fayul waaye ba Seydina Muhammad ganee àdduna dañoo xëy fekk mu fay ah. kon lépp luy kéefal keroog la fay yow mi ñëw ci gàmmu nag wala nga teewe gàmmu wala nga fekke jamono yu gàmmu fexeel ba lépp lu doon kéeféer ak bokkaale ci sa xol bi nga fay ko lépp lu doon jikko ji ñaaw nga fay ko lépp lu doon comportement bu yàlla gërëmul du melokaanu seyduna muhammad nga fay ko ba boobu mu amati place ci sa biir xol bi loolu rek mooy njariñu gàmmu nag bil iqtidaa imam al bushayri nak borom téré yi nenañu nañu dafa jëfandikoo rek firasa waye firasa yéefar du ko am firasa leeru yàlla la go xamanteni bi nit moy egg ci safa sel digganteem mak boromam mu koy wan li waja ñu ëlëk ëllëg ittaqu firasatal mu'min fa innahu yanzuru bi nur rabbihi الفراشة نور من نور الله ينظر به المؤمن وإن وإنما سماه الناظم فراسة حرصا على التجنيس دا فاي ديف جيناس خير تي جيناس ديغنتي فورسو فارس اك فراسة موتا مو جيفانديكو فراسة وايا فراسة ييفا دوكا ام واو وقال الكتاني الفراسة مشاهدة الحق ومعاينة الغيب واو يالا ماي نيون من توك سين بير كير خام لي واجا خيو لولو نيتاي ييغ فوف ديغنتي ماك بوروم بوكول اك جيسانه ناك بوكول اك ام اي جيني يولاي واخ واو وقيل الفراسة هي نور من نور الله وسر من سره ينظر به المؤمن فيرى الامر كانه عيان buñ ko toppee dafay guddi wal inzaar wal ixbaar bil mu xaw bil mu xaw wi faati inzaar mooy xuppe ñëw wax la mbir mu garaaw mi nar a ñëw yonent bi ñëw ni la kat safaraa ngi ñëw boo dee mooy yàlla wala nga koy bokkaale safara dina ñëw lakk la loolu mooy inzaar xupp la ngir nga bàyyi mooy yàlla gi topp yàlla xululul buus al buus huwa shiddatu wal masaib annaadila wa baata iwaanu kisra wa huwa munsariun كشمل أصحاب كسرى غير ملتئمين وبعد فنان ندى وبعد مدنا سار في الليلة في ليلة ولادته صلى الله عليه وسلم إيوان كسرى سين بالكون يا سين شاتويا شاتو بي سين شاتويا كلين كودون ليغيا بي ارشيتك بو باري دا لين في با يوم القيامه با ادنا دي فكي سين شاتويا دو دانو ولا ما دون اسيرانس بي waaye bi Seydina Muhammad gane àdduna dañoo yeewu rek fekk château ko ci suuf moo tax ku jàpp-jàppal ci yàlla rek jàpp ci yonent ci moo gën a wóor wa huwa ta moom mun sarion wala waawu lil xaal mbir moom nekkam di aju toj dajjee ko ka samli ashaabi kisra wa samlu rajuli xaalatuhu wa hayatuhu wa qiila ahluhu wa ashiratuhu niki mbooloom waa Kisra ba xayri multa ami xayri multa ami de du muy aji dajaloo waat du muy aji taqaloo tàqalikoo nañ tàqalikoo xam dootuñu dajeeti mukk lu ko waral ndax alkaani gi leen dugg ndax yeggoon nañ ci nguur gu yàgg goo xam ni yàlla mayoon na leen ñu bëri doole torop waaye yonent ba mu gane àdduna it am na lu xew mu ni wannaaru xaamidatul anfaas min asafin alayhi wannaaru saahil ayni min sodami mu ni wannaaru ay niiraanu lati kaanu yaabuduunaha walam taxmud qabla qabla dalika bi alfi aamin seen safara wi ñu daan jaamu junni at mu bi seydina muhammad dafa gane àdduna dafa fay min asafin nag ngir ñàkkare alayhi min asafin alayhi alayhi boobu yenn borom mu fassiri nee nañ ci Seydina Muhammad lay dellu alayhi ci ganek àdduna Seydina Muhammad wan nahru seen dex ga nga xam ne daw na junni at saahila ayni aji dal ji balluwaay la min sadamin ngir tarug naqar hamun yasxabuhu nadam njàqare goo xamante ni rëccu lay àndal kon seen dex ga daw na junni at bi Seydina Muhammad gane àdduna dañoo fekk dex gi daal di ngiis amatul ndox wa saa saawata an gaadat buxayratuha wa rudda waariduha bilxaybi xiina dami bilxaydi xiina dami wa saa jàqloona saawata madinatu saawa bërëb la dëkk la ci dëkku yaman yi ana xaadar ba ngis bu xayratuha seen géej ga du tasxiir nag bu xayra géej ga moo tudd bu xayra seen dex ga moo tudd bu xayra du tasxiiru baxr waruddata delloo waariduha ajrootam bil xaydi ci mer xiina dami ba mu ba mu mare lii maanaa mi dafa am madinatu saawa ñaari mbir moo leen dal keroog seen dex ga ñiis na ñaareel ba mooy ñi doon roote itam bañ demee di roote amuñu lu ñu roote mer nañ ñoom ñëpp kon kon ka doon roote ka ko doon rootloo am nañ naqar goo xamante ni bii gane àdduna sayidina mohammad lañ ko yóbbee waa ñu ne imaamul bouchayri tudd nga fii safarawu fay tudd nga fii ndox mu daan daw te dawatul dañoo bëgg nga misaal ñu ñaar yooyu nu mel mu ni ka anna bi naari maa bilmaa yi min balalin xusnan wa bilmaa yi ma bin naari min mi mu ne ka anna bin dafa mel ni dafa wëlbatiku nekk ci ka anna bin dafa mel ni dafa nekk ci safara wa maa la nga xamante ni bil maa i nekkoon na ca ndox ma min balalin ci tooy tooy ndox mi dafa safara wi dafa fay a fay ba boo ñëwee da yaakaar ni fii safara wi nekk ni mu fayee da yaakaar ni fi ndox mi nekkoon ah ngir njàqare wabil maa yi te nekk ca ndox ma fam fa ndox ma nekkoon maa tàngaayu safara wa nga xamante ni maa wawaay ga nga xamante ni bi maa fendi ga nga xamante ni bi naari moo nekkoon ca safara wa min dara me ci tàkk-tàkk kon defay na fay goo xam ne dafa fay ba ku ñëw da nga yaakaar ni fii la ndox mi nekkoon waaye nag wal jinnu tahtifu wala anwaaru saatiatun والحق يظهر من معنى ومن كلمة سيدنا محمد يعني نيال لما يبقى رسول الله نخ محبته يمن لسيد الحاج محمد المنصور وأمن ورحمة وتكسو من الأنوار من كان عاريا ما تقول بقرك بوي بقى سيدنا محمد إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله تم محبة الله دفبري أي مرتبة فأما محبة ذات الله lillaahi dafa am mahabatu sifaati am mahabatullaahi li niamillaahi am mahabatul muminina lillaahi am mahabatu ahlil kufri lillaahi ñu bëgg yàlla ngir yàlla ñoom bu ñu sant yàlla ñuy sant yàlla ngir yàlla rek waaw xam nga alhamdulillahi sant yàlla te fekk da sant yàlla ngir yàlla yombul léeg-léeg nga gis ku sant yàlla dafa am lu bëgg ci poosam am ko mu ne alhamdulillahi bari ko sant yàlla ngir lu ko yàlla defal lu mu yëg ni yàlla defal na ko waaye ki nga xam dafa sant yàlla ngir yàlla mooy ki yàlla may ma mahabbatu zaati dafa bëgg yàlla ngir yàlla waaw Mawlaana Seydul Xaaji maa digganteem ak yàlla nag la ko doxalee woon bëgg yàlla ngir sant yàlla ngir yàlla woote jëme ci yàlla ngir yàlla moo tax ñu ko topp topp ngir yàlla bu ñu yeggee ci kanamu yàlla yàlla fay leen ngir yàlla yal ci yàlla boole mu ne wal jinnu wala anwaaru saatiatan wal saatiatun walxaqu yadharu min maanan wa min kalimi nee na wal jinnu jinnu mushtaq baat la boo xamante ni mushtaqun min janna ya jinnu isastatara janna mooy nëbbu na lu tax ñu ko jinne mooy jinne dafa nëbbu ci bëtu doomu aadama simple mu mën koo gis waaye am na ñoo xam nag dañ ñuy jàkkaarloog ñoom di ko gis tëxtifu ña woote di éyu ñoom jinne ya di wote di haatu ci doƴya di wax ni seydna mouhammad ganena aduna wal anwaru leer ya saati atun way jolli lañ al anwar al barahin wal ayat tektal yi wane ni kat ku musa gane aduna gane na aduna te ki gane aduna kenn munta gane aduna te mel ni moom te kenn du mel ni moom boo xoolee ci jaww ji xamni lu musa xew xew na mooy seydna gane na aduna wal Anwaru leer yi atun way jolli lañ ndax da ngay da ngay da ngay toog di gis waa Saam diggante Saam ak Makkatal Mukarrama mel ni ay projecteurs yi jaabante ci diggante bi nga gis leer gi di baagante nga xam ne Seydina Muhammad gane na àdduna mooy leeru aduna ak àllaaxira sangu jaam ñi yowmal qiyaamati moo tax yàlla ñu yàlla fayal Maodo rek waaw moom mi fexe ba nga bëgg Seydina Muhammad fexe ba nga toog jël lépp jox yàlla jël lépp jox Seydina Muhammad fexe ba moom seydul xaaji malik kenn du jël seyduna ma ab xaaji malik teg ko ci palaasu yàlla wala nga tudd yàlla fàtte yonent bu tudd alaaji malik jërëjëfe seydul xaaji malik waaw ashirku dafa dafa dafa dafa dafa sew bokkaale dafa sew waaw yenn nga gis ko nga nga nga gis nga gis ku teg sëriñam ci palaasu yàlla hmm? wala nga ne laa ilaha illallah teg ci sëriñ déet laa ilaha illallah moom kenn dafa am place mooy muhammadu rasulullah moo doon nag fexe na ba ñu xàmmee li yàlla moom li yonent bi moom ak li Cheikh Ahmada Tidiane moom mu nëbbu ñu boppam moo tax yenn saa yi da ngay sonn li da ngay sonn mooy da ngay da ngay gis ku bëgg nit ñi xam Seydul Xaaji Maalik ci àdduna te Alaaji kenn mënu koo xam ci àdduna ndax mag mu toll ni Seydul Xaaji Maalik bu demee ba ci Seydul ba ci ba ci Màkka téye ci Kaaba ga nii bu ma kenn xam yow nga bëgg ñu xam ko dangay ngay sonn te kenn du ko xam ah kenn du ko xam wal xaqu nag dëgg yazharu ma ngay feeñ nañ min ma anan kantikaasil asnaam waxumu di naar ci maanaa ci loo xool rek nature ci nature bi boo xoolee di gis ni seen di nga gis ni dëgg feeñ na ndax xërëm yi ñu daan jaamu daanu na da nga gis ñu toog di jaamu seen xërëm ba yàgg xërëm bi xalam te kenn du ko laal xolal xoolal ñàkk chance gu tool noonu abu abu abu jahlin avant islam di ñëw abul xakam lañ ko doon tuddee le père de la sagesse xam-xam yépp ci moom lañ ko doon jëlee mu daan yett xërëm di ko jaam bi Seydina Muhammad ñëwee ñu xam ne kon nekkul abul xakam waaye abu jahlin la nekk waaw ah waaw te dëgg kon mënoo nekk intellectuel mukk wala nga nekk boroom xel mu mat sëkk te mënoo gëm yonent bi munte ne waaw ah? mënta nekk ndax Seydina Omar bi mu tuubee day toog ba yàgg rek mu ree ñu ne ko Seydina Omar looy ree mu ne damaa mos am yàlla brioche yàlla joo xam ni pain wala laa ko defaree woon ma toog ba yàgg xiif dagg nopp bi toog ba yàgg xiif dagg bopp bi ma ba yàgg ma dégager lekk lekk lépp mu xool xalaat façon ndof gi ñu nekk ndox gu nit mën a yegg bay yett bong bong di ko jaamu ra borom téere ba wax ni ida arada allahu hidayata abdin tajalla alayhi bi ismihi lhaadi waaw bu la yàlla bëggee gindi rek dafay jël tur bu ñu wax ismul hidaaya def ko ci sa xol moo xam waaraate ngay gis wala yonente ngay gis wala nga dajeek ab sëriñ mu yóbbu la teg ci yàlla waaye bu nekkee yàlla naroo laa boole pour ñi nga war a gindeeku boo dajee woon ak sayyidina muhammad it da ngay bañ ah moo tax bañ nitu yàlla wóorul gis nga abu jahlin abu lahabin booy xool am na feebar ju bon bi ñuy wax Ebola boo xoolee téere yi dangay gis ni moom la njëkk a dal abu lahab ba demee ci sarxa yi bu ñuy nettali façon bi nga xam ne noonu la feebare woon ak nit ñu wax ne noonu la Ebola mel benn la moo tax nitu yàlla dal ci kawam di ko wax wóorul Sayyidatuna Aïcha ñi ko doon jam ci xarisul ifk ñëpp ku ci nekk bala ngay génn àdduna donte ni jullit nga yàlla jéggal na la yàlla teg na la natt bala ngay génn àdduna wax nitu yàlla moom saddiq wa illa rek fa mut bidaa imtihaani wal xaqu yadharu min maanan ci lu ñuy yëg wa min kalimi wala lu ñuy dégg boo xoolee dégg boo xoolee gis boo làmbee daj boo dégloo dégg ni seyduna muhammad gane na àdduna ammu waaye yéefar yi amuñu chance li tax amuñu chance mooy yàlla ci boppam moo leen nammalul gëm am Muhammad moo tax mu kaste seen xol waaw am nañu bu bu yàlla bu yàlla bu yàlla bu yàlla bu yàlla bu yàlla débloqué woon seen xol rek ñu gëm yonent bi moo tax yàlla defal la xéewal gu toll ni nga bokk ci xeetu yonent bi gëm yonent bi nga koy xeeb bi ne la ndax affaire yaa ngi dox nga ne dara doxul yàlla defal lu toll ni gëm Seydina Muhammad amul lenn lu toll noonu moo tax jullit war na tool wax fu toll naan alhamdulilahi ala niamatil islam sant yàlla sant gu wér péng ngir lim la boole ci nga gëm Seydina Muhammad boole ci xeetu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam amu ñoom yéefar ya wa damir fihima rajiun lil kuffar li lam yantafiu bima shahiduhu min al maana wa bi ma samiuhu min al kalimi lan moo tax mu ne amu dañoo gumba wëlif gis dëgg wasammu tëx nañ wëlif dégg dëgg ndax nit mën nay gis waaye fii gisul li mu war a gis gisul nit mën nay dégg loo mënti dégg ci journée bi te dégluwoo waxi yàlla toppoo waxi yàlla dégluwoo li nga war a dégg li ñu nag amu wa sammu moo tax fa ilaanul bashairi way yëgley mbég di wane ne seydina muhammad gane àdduna fa xaqal xanaaw dégguñu ko moo tax lam tusma dégg ko sama qabuulin dégguñu ko déggug nangu wa baariqatul indaari te mel xatig waar ya lam tusami ko séeno ko séenoofu ko xolof nag daa neexul ak prononcé kal kal anwaari lam tudhar lahu nadara qabulin من بعد ما أخبر الأقوام كاهنهم بأن دينهم المعوج لم يقم خمغا جساني بلا جساني جسل بروبليم تخول مو آي خمغا كان مو آي دغ كي فخه با بروبليم بودي اكسي تيو ها ki fexé ba problème bi du egsi ci yow ñom wa fursu sen gisane yi waxon nañ len ni sen diine ji mi ngi waja daanu ndax amna sang buy waja gané gane bu gané aduna sen diine ji far waye taxul ñu mën ci dara bañ doon ay deug dañuy fexé ba lolu baña am min ba'dima min ba'dima akhbara al ما أخبر bi anna بأن al المعوج lam yaqumi من بعد ما قلنا وبنا خمنتني أخبار خبارنا الأقوام القوم نك بات لا بو خامني عرب دا فا بري لونكو جيفانيكو قوم نينانيو يطلقوا على الذكور والاناث عرب دينا واخ قوم فك غور لا تي بغ جوبلو اك جيجين ني ني xawmu jigéen góor rek moo ko jagoo waaye bu ñu waxee xawmu jigéen ñu bokku ci bindikat bi nee na walastu adri walastu ixaalu adri a qawmun aalu xisnin am nisaaw kon kooku xawmu def ni góor ñi rek moo ko moom waaye jigéen ñu bokkuñu ci al aqwaam kaahinuhum seen jabarkat ya wala muraadu bihi huna كاهنهم والكاهن هو الذي يخبر بالمغيبات لن لن وخ نيوم غيسانا كات بان دينهم نك سين دين جي والمراد به هنا طريقتهم التي تدينوا بها سين دين جيغا خامني موم لان جاب دان جامو سفر يا خرم يا الموج دين بي دي ادي جينغ دي لم يقم دوت الجبت دوت taxawati نياك نا بوفار با جيغا بوفار بو نيكي سي سا لوخو باي واجي waaj لو ديف lo bëgg def rek lu lay xañ pouvoir ngay def moo moo nit kuy waaj a génn àdduna yam nit kuy waaj a génn àdduna pikir boo ko pikiir pikiiru kaay dee rek nga koy pikiir waaye dootul dellu seeti ñu dem wa baadama aayanu fi l ufq min shuhubin munqaddatin wifqa ma fi l ardi min sanami wa baadama aayanu fi l أي في أفق السماء من شهب من شهب من للبيان يلا وبعد ما آيانو جناب نجسي جاكار لو في أفق سين جوجيا سين غوخيا من شهب تي أي جم منقدة لم لبغا وخ موي وفق ما في الأرض من سنمي جمي شيطاني جني دان دان دم أسمان دي دغلو خباري décret bu génn li ngay gisee yenn saa yi gouvernement am ñoo xam ne dañuy nekk ca gouvernement ba bu ñu déggee xibaar génn jaay ko gaa yi ci biti ñu bind ko noonu nga daan gisee itam jinne yi dañ daan dem asamaan déglu bu ñu dégloo wax iw bi ñëw jox ko gisaanekat bi mu wax ko waa dëkk bi bu xëyee mu am dafa ñaan sawaay yuu waaye bi yonent bi gënee àdduna nag dafa mel ni ay tribune lañ daan toog ñi ngay gisee stade yi mel ni dañu am ay tribune ñuy toog jinne fa lañ daan toog daan déglu bu yonent bi gane àdduna nag dañ leen a sànni ay misil ñu daw jinne yooyu nag ba léegi ñoo jur jinne yu jommalaate jinne yu jommalaate njabootu ñooñu dañuy doon borom yi nee nañu yonent yàlla Isaa bi mu ganee àdduna dañoo dàq jinne yi bañ egsi ci asamaanu ñetteel bu ñu yéegee asamaanu ñetteel lañuy ñuy mën a yem waaye bi Seydina Muhammad gane àdduna dañ leen asamaan dootu ñu fa yéegati téere nag mujj gi danañu delluwaat loolu nag ixtilaaful ulama la wifqa ma fil ardi dëppoog li nga xam ne nekk na ci suuf min sanamin waaw ndax da gis xërëm boo xam ne dañ koo tabaxoon tabax ko ci matière bu dëgër mu mel ni ñu tabax ko ci xaalis wala ñu tabax ko ci alminium waaye nga toog ba yàgg rek gis xërëm bi commencé jaayu taraat daali mawludin ana rabbi nuurihi jamia fijaajil ard fi sharq wal garbi ñu mel ni dañuy laaj lan moo daaneel xërëm yi Maodo nee na inaa ul ah bi biir xërëm yi da ngay dégg xërëm yi ci boppam ñuy way lu leen daaneel ñu ne ñun de daanu nañ ngir benn gane sët benn benn jëmm benn sang bu gane àdduna boo xamante ni bii moom mooy leeral asamaan leeral suuf leeral àdduna ak alaxira mooy Seydina Muhammad waaye ñun ñi am sens fekk Seydina Muhammad dem ci ay siècle ñëw toogaat fii di bëgg Seydina Muhammad mag ñi tax ñu xam ñooñ yàlla ñu leen fayal te kooku mooy Seydu Xaaji Maalik ci ñun waaw. ma yenn saa yi ndeysaan da gis gone ko toog ba yàgg jàng meneen njàng weddi baayam weddi maamam weddi mag ñi. man ko ya fecc le ndax bula sa bay tuddé won benen tour wala nga fekk sa bay nek lenen lolo ngay doon sa bay mi la tuddé islam jangal alquran ba nga mag wax deug ya wara nga ko delo ndukal ha ah? kon la yaftalina allah jalla jalaluhu bi baliyati al i'rad an dhaka al wali حتى غدا عن طريق الوحي منهزم من الشياطين يقفو اسر منهزم حتى غدا mujju عن طريق الوحي ولف يون ولف يون ساتي وحي الوحي لغة موي الإسراء ومنه الحديث الوحى الوحى أي العجلة العجلة ولما كان ما يتلقاه النبي صلى الله عليه وسلم بعجل سمي وحيا الوحي ما إسراء قاو يعني ني وحي دان دوتيكو تي موم ني موي غاوي موتاخ ني وحي وقيل اصل الوحي إخفاء والإخفاء المعنى في الخفاء والوحي على الأنواع كثيرة ولكن يمكن تقسيمه على ثلاثة أقسام وهي الروحي وحي المخاطب وحي الإلقاء موضع الرؤيا خطاب كذا الإلقاء من ملك مراتب الوحي maanaam نعم. Seydou الحاج مالك li اندي بوشيري Buseyri ñuy way burdu بير bayit boo teg rek xataa xadaa ba mujj an tariqi alwaxyi welif yoonu waxyu ya munhadimun way daw dégg nga day min alchayatini ci seytaane ya yaqfu di topp di xentu isra munhadimi maanaam ni shayatin yi di dawee di jiitalante loolu la bëgg a jàngal ni keroog bi seydina Muhammad gane àdduna loolu moo xew ka annahum mu def lu góor gi def lu ñu wax lu ñu lu mel lu ñu wax talwiix talwiix mooy ngay tudd benn mbir fekk dafa am xissa boo ci bëgg nga tudd benn mbir fekk dafa am loo ci bëgg jàngale mu ne ka annahum dafa mel ni jinne ya ba ñuy daw haraban cig daw abtaalu abrahatin ñooy ñayu abraha mooy généralu abraha ya mooy contingent ya mu amoon ni da koy bëgg a toji kaaba ga abraha ndeysaan xam nga iñaan baaxul yàlla daf ko nattu mu gis xujjaaj ji di dem màkka di ziyaara ji di wër kaaba gi mu gis boppam gis boppam gu toll ni mu ne dinaa tabax benn néeg boo xam ne mooy dàq kaaba gi fexe ba ñu doon dem màkka di aji foofu ñu ñëw ci sama dëkk bi di fi aj yàlla nattu ko benn arab dem ca dëkk ba jël sobe takkal mu tabax ba pare benn arab jël sobe takkal ko ca tabax ba mu ne xaaral ma dem toji kaaba ga ba mu déparé ba ñëw maring hadji malik nee wa fil mughammasi yaqbal qasda lil harami wa sajidun fiiluhu mubyaddu waaw nee na abraha di ñëw ba yàgg ba egg bat bat nu mugammas ñay wa dal di bañ bu ko dàqee pour mu dem ci kaaba gi mu lank bu ko dàqee pour ñibbi mu gaaw pour wal ni yalla mi bindu doomu adama rek mo mën xex ak doomu adama mo defante ak mom yalla dafa yebal ay ay avion avion de chasse yi nga gis américain yi defar ko ñuy dem di bombarder ji yàlla ñi mu yabal ku ci nekk misil bi la war a rey dañ ci bind sa tur waaw bi la bëgg war a ci bind sa picc mu ci nekk da ngay seex benn kepp sa ñaari tànk yi benn boo xam ni moo war a rey kenn ku nekk bi la war a rey bu ñëwee ba tiim rek tàbbal ñu leen di rey abraha nag yàlla dafa bëgg bu defee lu muy jàngale dafa bëgg ku dem nettali ji ko waa dëkk ba abraha ñu bàyyi ko rek yàlla natt ko mu feebar feebar boo xam ne cër yi dañuy wadd ba ba muy egg dëkkam comme cuuju koppin la mu jëmel ayna mafarru wal ilahu talibu wal ashramu al maghlubu laysa alghalibu ku yàlla di ku yàlla di dàq doo mucc moo tax dégg naa seydna ahmad seydna cheikhna tidiane yi seen cheikh tidiane si di wax ni yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla suturaal ndax ku yàlla sàmm nga mucc ku yàlla sutural kenn du la yem ñaan gu gàtt am solo yàlla nañu yàlla sutural yàlla nañu yàlla sàmm ndax ku yàlla sàmm nga mucc ku yàlla sutural kenn du la yem yàlla nañu yàlla dugal ci loolu abraham bi mu yeggee foofu dem ba toog picc mi ko war a ñëw ak misilam ñëw tiim ko mu naan mi ngi noonu mi ngi noonu picc mi tàmbal ko mu daal di dee kon yàlla moom koy tàkke xamoo li ngay def te waliya nag aadantu bil harbi ku dal ci kaw wëliyu yàlla yàlla nee na pareel ci kaw ci sama kaw nga dal waaw ka annahum haraban nag mel ni jinne haraban ci seen daw ga ab abrahatin waa kër abraha nañ doon dawe jamono ji leen picc yi doon dàqi di leen bombardé wa fi alam tara ma yashfi sudur liman ara lahu damaun min ilmi xaalihimi Seydu Xaaji Malik neena bo ci bëggee xam dara lu gën a yaatu seetal alam tara kayfa faala rabbuka bi ashabil fiili alam yaj'al kaydahum fi tadlilin naam kañ ja'ala kaydahum fi tadlilin wa arsala alayhim tayran ababilan tarmihim bi hijaarin min sijilin fa ja'alahum ka asfin maakulin nee na boo ci bëggee xam dara rek seetal alam tara kayfa waaye jinne itam ni doon dawe bi ñu leen dàkkee fañ daan dégloo wax yu ya ñoog waa kër abraha yi doon dawee noonu lañ mel aw askarun bil xasa min raxatayi rumi mu bëgg laa jàngal itam seydina muhammad jamono jam doon jël ca xaswatu di tibb xeer diko sànni nan shahatil wujub muy dugg ci bëtu yeferi yi neena nee na nañ doon dawe ñom yeferi itam jàppal ni ñi nga xam non la jine doon dawe non la mel rumi bopp sanex nañ ko min rahate yi ñom jembara yoy مولانا يا ويل wayla دلت مكيدته إذ ما يسوق fuyulan قاصد الحرم وفي ألم ترى nabdan bihi baada tasbihin bi batnihima nabzal musabbihi fi ahshai multaqimi nabzan ay nabadahu nabzan bihi bilxasa bi batnihima walbaa darfiya walmuraadu bi batnihima bi baatinihima ci tenku yonent bu tedd ba bi mu téye jemmaraay yi ba ko sànni jemmaraay yi dañ doon sàbbal ba ñëpp di ko dégg sàbbaal googu jembaraay yi di sant sàbbaaluk sant yàlla sant gu toll ni ñu ngi contribuer ci jihaatu Seydina Muhammad waaw segam jembaraay yi ñoo mën a kàbbar ngir kontaan ci jihaat ci Seydina Muhammad ngal la ki nga xamante ni mooy doomu aadama comme que jihaatu dem xeex xare ji jeex na nañu bàyyi xel jihaatu bakkan yonent bi nee na jóge nañ ci jihaat ju mag ju ndaw ji jëm ci jihaat ju mag ji te jihaat ju mag ji mooy jihaat ak sa bakkan jihaat sa bakkan dara rawu ci ñu noddu fajar nga xëcc sa mbalaan tëddaat bakkan nag naan la see nga tëdd nelaw Seydina Muhammad ni kon de boo fekke woon jamono jamay gàddu sama jaasi di dóorante gaa yi doo ñëw ah kon ne doo jullit nga bañ nag nabzal musabbihi kam sànni aji xa aji sàbbaal ja mu yonent yàlla yunus min ahshaai multaqimi mu jóge ci baljeti jën waroon aji lumpam aji aji aji wann ja yonent yàlla yunusa jën wa da koo wan bi mu bi mu sàbbaalee yàlla ci biir jën wa yàlla génne ko ci biir jën wa nii yonent yàlla yuunu sa doon sàbbaalee ba génn ca jën wa nee na xeer yi bi leen Seydina Muhammad téye di leen sànni noonu lañ doon sàbbalee ci biir teen ko Seydina Muhammad bunt bi la jàng tey yaakaar naa alfaslul xaamis